ñu leen di nuyu di leen ziar moo xam fu ngeen ñuy suivre rek à travers les les médias yi nga xam ne ñoo fi nekk tey teew ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di balu ñeex si ajuma ji parce que tey la ajuma tombé ak le 2 juillet 2021 ñu ñaan jàmm Sénégal mais di ko ñaan si àddina bi di ñaanal tamit sunu réew mi nga xam ne fi la ñuy yeewoo yàlla na fi yàlla saxal jàmm saxal ko ci àddina bi di ñaanal sunu kilifa diine yi xalifa yépp yal na leen yàlla defal gudd fan ak wér gi yaram defal ko taalibe yi mais tam di ñaanal waa jàngu bi parce que Sénégal noonu la ko yàlla binde yàlla na yàlla def jàmm def ko ci àddina bi tey nag fi nu taxaw moom moo ñu ngi nekk parcelle ci seesu amadu Ba li ñu fi dajale ñu ñuy profité tamit du nuy waa parcelle yépp rawatina le ministre Amadou Ba ak ñi muy liggéeyandool ñépp parce que lii bu amee tey defe naa ne ah moom kilifa gi moom moo nangoo joxe place am wala siège am ñu mën fi defee lii nga xam ne ki ko waral tamit doomu parcelle la di jamayke di xale boo xam ne ñëw na si làmb ak ambition parce que defe naa ne at yi mu am ak boo ko xoolee moom ak li muy def tey la moo lay wan ne ambition la am am na gëm-gëm am na fu mu bëgg a dem kon Amadou Ba tamit su gisee loolu ba nangu jël siège jox ko ko mu organise bi face à face boo xam ne wala benn conférence de presse boo xam ne mu ngi war a dox ci diggante xoyantaan ak bàyyi na la Youssou waxoon ca mbay gay duubalees laay waxaat rek lamb ji fit amoon daaw verdict ba la ñuy xaar jamaykee nag mbër yi ngeen jéggal ma de xam naa bu ngeen dëgëree bopp jama leen gën a dëgër bopp combat bi nag komba yu bari am na ci réew mi waaye combat bi mooy combat bi gën a mag Sénégal lu tax nga wax lu tax nga wax ko mooy combat yi am yëpp ci bari tàngal ceeb la te yëpp boo xoolee ci réew mi la xewee combat bi mooy combat Sénégal bi international la combat international la ndax yi am combat yëpp senegal ku ci daan ak ku ci daanu yëpp ci réew mi lay des. loolu bii nag ki daanoo ki daan day génn réew mi. kii daan kii ak kii daanu yëpp benn day génn réew mi benn des. ok ndax xoyantaan. Hmm. Gambie lay waree porte drapeau Gambie indi ko Sénégal. Hmm. Baye Mandione ne ci réew mi porte drapeau Sénégal. kan lañ tuddee bés bi Papis doomu Sénégal la defal Sénégal lu ne représenté drapeau Sénégal fu ne kon combat bi combat international la lu tax fu may waxee la délégation bi yegg si Sankara Mbaye ñëpp xam nañ ko moom waaw ak ak ak Thier ak Thier waaw ñu ngi noonu ñu ngi leen ziar baax di leen wax ñu ndax Papis Demba Cissé defal na lu nekk Sénégal te Sénégal nag rendre hommage lañ gën a mën ba jógee fi ñu lay rendre hommage ñun nag ay ndaw la ñu gis ne ndaw la liggéey lu am solo combat bi suñ defee ale bu ko Gambie tuddee ko aadama Barrow mu jëlal drapeau bi loxoom ñu ñëw war ko indiwaat Sénégal day jaadu buñ ko tuddewul njiitu réew mi tamit ñu tuddee ko koo xam ne mën nañu méngale jëfam ci réew mi ak lu fi njiitu réew mi def ndax moom porte na drapeau Sénégal teewal Sénégal fu nekk defal Sénégal lu nekk defal Afrique mu nekk kon suñu jëlee drapeau bu toll nii muy Baye Mandione yi bëre champion bu nekk Sénégal jël xoyantaan roi des arènes bu Gambie déplacé la indi leen fii Sénégal suñ ko tuddee Papis Demba Cissé wàcc nañ waaw ba tey day représenté africain la tey làkk bi muy làkk boo demee Gambie soo ne Inko mu tontu la soo ne Mbading Mandinkool mu tontu la ndax Casamance mooy Gambie loolu moo tax ñu jël drapeau bi di peeku ko di si ziar ñi nga xam ne tey ñoo ko teew muy Sankara ak Thier nga xam ne sunu xanaa suñu lépp la di ñaan ci réew mi jàmm di wax ne combat bii waa senegal bu ñu xaaree ba waa Gambie ñëw feesal stade bi. waaw salaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant naa ba lu sant yàlla du julli ci bi may sant di gërëm samay ñaari waajur di leen ñaanal yàlla tàbbal leen àjjana ak mbooleem jullit mu ñàkk waajuram yàlla yàlla tàbbal ak yéen ci barke Seydina Mohamed ñu nekk ci prison yi yàlla yàlla sama borom jàppale ñu dellu seen njaboot ñu nekk ci hôpital yi yàlla yàlla sama borom saafara ñu delluwaat seen njaboot. Sénégal yàlla wàcc fi xéewal wàcce fi jàmm Gambie yàlla wàcce fa jàmm wàcce fi xéewal ndax ñu doon Gambie ñoo bokk lay ñoo bokk bàyyi ndax làmb di làmb Sénégambie la yàlla dogal na bëriwul nag maa xoyantaan maa koy nuyoo vraiment di nuyu ñi si plateau bi et tout di nuyu Sankhare yi suma doom day maa ngi bu baax waaw ah, di wax ni ñu lay dalal jàmm ah. waaw di wax di wax dëgg yàlla euh, di kontaan rek laa def ndax jamaïcain xale la dafa toll ci liggéey mais nag liggéey boo gis bi commencé fii foo ndong ndong am waaw su ko mbaa xoyantaan roman jàng xoyantaan préparé ko ay mbokkam man ma préparé su ko mbaa su mbokk ñu déplacé wu dem ba Gambie làmb ji yàqu gënalu ma gënalu suma adversaire gënalu Gambien yi gënalu Sénégalais yi kon nag bu yàlla dogalee tey Jamaïcain jëlaat combat bi jële ko Gambie andi Sénégal may wax ni day day neex ndax li yàq làmb Gàmbi yàqu nga Sénégal waaw li yàq làmb Gàmbi wallaay yàqu nga Sénégal wax dëgg yàlla kon nag yàlla na ko yàlla may wér yàlla defal ko wér defal promoteur bu ndaw bi wér waaw bu bu jàllee si combat bi doo ko ne promoteur bu mag waaw non léegi bu mag la sax ndax Papis Demba Cissé wax dëgg yàlla ku tuddee drapeau rek ndaanaan nga ndax moom international la te dëgg yàlla ñun waa Sénégal yëpp suñu tiitar la da nga koy sagoo di ko ndax tey boo nekkee Sénégal doomu nekk bitim réew di fayit da nga ko war a ñaan yàlla sama borom yàlla jàppale ko kon nag Papis Demba bi nga xam ne jox drapeau bi xam naa ni kontaan naa ci trop te xam naa suma adversaire bi kontaan na ci ndax da nga koy bégal moom di ma bégal kon ma koy wax ni rek mu jàppale xoyantaan ci combat bi jox ko ay moyens ndax Gambie lay jugee man demoon naa Gambie mais may dem Gambie frais yu métti métti laa defoon doog a ñëw. xam nga di dem Gambie bi nga fay kaar bu kaar yi benn kaar bu ne ñu lay fayee ko ay deux cent cinquante mille ci Gambie bi ji rek te Gambie Sénégal benn la kon nag xoyantaan bi ku war a jàppale la maa ko fi jëm si na génn ay jox xoyantaan xaalis bu bëree bëree bëri waaw man moom dama jox tuuti rek ndax Sénégal la dëkk jox jamaykee lu bëri waaw ah, alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur gërëm sama sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Djib Ndiaye di gërëm sama sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Djib Ndiaye di gërëm sama sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Djib Ndiaye di ko ñaanal yal na yàlla xare ko àjjana yal yàlla xare ko àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla gunge leen ko si kanam di nuyu presse bi fi daje yëpp Gambia Sénégal di nuyu Gambia yëpp di nuyu ñi ma àndal ñëw fi di nuyu Baye Mandione ak plateau bi ñu ci nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu jam Babacar maa ngi leen ñoom Mara Ndaw fans club Khoyantane ñoom Tafa Gaye Ousmane Gaye eh, ñoom Jim Gaye Anjamataar Kumba Wandoo famille maa ngi ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm dama waaw di sant yàlla rek eh, di di sant yàlla rek di nuyuwaat eh, ñaari grand yi ah, xaj na xaw seen tur waaye ñoo bokk taaw bi maa ngi leen nuyu di leen leen waaw maa ngi nuyu di leen ñaanal jàmm yi di nuyu sama manager Matar Sène di nuyu Gambia bi yëpp képp ko siiwu rek maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm di leen wax yàlla yàlla may tal ak fekke damaa ñëw ci saal bi ma fekk fi sama benn booy bakka mële mu nekk saal bi mu nekk si eh, kanam mële eh, maa koy nuyu bu baax dañoo gëj a gisee man ak moom nag moom mooy woo waaye dégganteetuñu Eh, maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu monsieur le maire Aliou Mané di moo tax ma dégg tur wi te gisuma la sa waajooju depuis États-Unis maa ngi lay bëggee Lirou Sankara maa ngi lay ziar. Lirou sama xarit maa ngi koy shaada asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa ñi ma fi fekk ñëpp di nuyu tamit la diaspora di leen wax ni je de tout cœur avec eux. allah tey nag li waral bés bi dafa rëy muy Papis Demba Cissé ndaxte wolof Njaay dafa ne gën a jege gën a yey te macha allah jege naa ko xam naa mooy kan. ndax saa yi ñëwee ici au Sénégal tournée yu muy mënti def mais bu fekkee daf ma fekk States aux États-Unis dama koy bàyyi ñëw ànd ak moom mu nekk nit ku baax nit ku bëgg làmb nag nit ku bëgg làmb mi ne nag euh, démb normalement maama la ñu waroon a def euh, conférence de presse bi jàkkaarloo bi mais comme da yàlla ak pexeem euh, jaam jaam ak dogalam xaw ma ja yàlla ak dogalam. jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaw. moo tax daal fi mu ne nii Papis xaw a am benn euh, inconvénient bu ndaw a ndaw ndaw ndaw mi ne ma nag Sankara teewal ma fa di gërëm tamit toute l'équipe de euh, Papis Demba Cissé Azodage Souti ah Baba Anne Diop Daaru Thier mi nga xam ne tamit euh, copain jamaïcain la macha allah li ma mën a wax nag ci bés bi mooy Gambian people day our people ah. Gambia moom su man dama faa bokk ndaxte képp ku xam States xam ni Gambien yi dañ fa am wàll bu rëy moo tax mon ami mon frère Xoyeen maa ngi koy ñaanal tamit mu am jàmm bu baax a baax uh-huh. ndax man damaa bokk Gambie kii nag c'est un nekk ndaanaan ñu ñu am loo xam ne ñoo ko bokk muy muy Pikine uh-huh. ñu am loo xam ne ñoo ko bokk muy ëmm seen te kooku sunu waay la bàyyi ma joon tamit ma koy ñaanal jàmm saasu ne di ko ñaanal jàmm ndax nit ku baax la boo ko xoolee rek xam ni xol bu rafet la te man damay bëggee borom xol yi rafet yi moo tax mon frère yal yàlla defal jàmm nit ku baax nga uh-huh. di ñëw nag ci nga ki nga xam ni moo waral bés bi Euh, muy papis nit ku baax la waaye nag jamaïcain macha allah da dañ ne saa ne jeunes yi dañu war a mën a boole seen doole des seen participation ci développement wu dëkk bi ndaxte lamb ñëpp xam nañu sunu culture la te jamaïcain nekk xale nekk tamit koo xam dañ ko war a jàppale mbir mi warul yam ci ñenn ñi rek dañ ko war a yaatal ba ñëpp xaj ci ba ñu am ay junniy junniy jamaïcain Papis Demba Cissé kontaan nañ ci drapeau bi ñu ko tuddee te incha allahu rabbi euh, comme dañuy soog a door li ci kanam rawuli bët yow yaa wax lu bari xam nga problème bi ah gis nga tey jii ma nga ah, kaay xoyantaan kaay waaye ma kaay kaay ñu tëj débat bi kaay kaay kaay leen taxaw amu fi dégg nga nan ko may mu def lu ko neex na dem fu ko neex taxaw fu ko neex bu règlement yi am man baax ko su mu ñëwee maa dëkk Sénégal nañ teg règlement yi sama kaw mais kii bu ñu ko tegal ba règlement na def lu ko neex yaa ngi dégg man li may intéressé suma digganteeg moom at bu jóge suma digganteeg moom ndax combat bii nii combat fay bor la ci moom ci man boo gisee ma jëlaat combat bi ak lu tax wallaahi wala ko ñëwee jamaïcain bi ñu jox ko sax moom fu mu ne dangaa fii yaa ngi dégg bi ñu jox combat ko ba xam waxaalaw ma moom sa la première fois ma jël combat waxaalaw maa Jamaïcain bu fekkee waxaal naa mu bëri dañoo wax ko fii kaay ma la laa la wax dama laa wax dama la dama la moo tax nga dugg ci loolu ma ne ko jàmm ne naam ku dee sa bàmmeel mu ngi nii su ma fenee kaay dama da fet fen ma ne ko xoolal mu ne sa combat xoyantaan laa bëgg a ma ne ko gratuit damay bëri combat boobu dama ko téye fii il faut mu leer dafa am lu ma yoral nit ñi xoyantaan yoral ko nit ñi war lañ dafa war a yaa ngi dégg loolu mooy may gudde kii tey bu ñëwee Sénégal fii ñu xam moom mooy kan njawar su ma neexee ko ma ko laa day yàqu su ma neexee ma def comme yow rek yar samay wey balaa mooy ñëw fi mel ni jigéen su ma ñëwee ñu ne ma daggal ma bay làmb jeexu luñ koy def dañuy bëre loolu la rek su ma neexee ma def li nga defoon rek yar ay we mel ni jigéen emaay ko teg si wala ma fuddan ko sax dafa am lu njëkk ah combat bi combat dañ koy régulariser ñu xam kii na régulariser combat bi ñu xam kañ la moo gën mais taxaw fay wax xamoo kañ lay bëri pourquoi dafa changé régulariser ñu toog suñu bi benn semaine sax baax na ajo mu sori billaahi waaw mais man maa ngi liggéey moom mu ngi liggéey kay lu leen yàggal combat bi pare ngeen liggéey ma damaa bàyyi woon man moom liggéey waaye mën naa li ma amee mën li ma amee li ma amee du baabi ñor du pour baabi ñor laa la wax lan moo la tax a damaa bëgg nga wax Babacar Babacar yow xam nga ma yow yow xam nga ma yow xam nga ma allo yow xam nga ma waaw léegi jaway ke heure julli jot léegi taxaw leen waa taxaw leen léegi ñu tëj ko jaway ke moor kaay ana moor léegi dañuy tëj affaire bi heure julli jot gaa yi. fii nga fi indi fii nga dëkk nga ëpp la fi ay fii nga fi indi xoolal fii xoolal fii. wala soo borom taxaw da ngeen delluwaat si jàmm ak salaam yaa ngi dégg dañu teragal xam ñu daralu yaa ngi dégg mais seen bër bi mooy mooy ngaaka rek mais ñun ay dañuy teral doomu yaa ngi dégg kon nag yàlla yàlla jàppale ngeen delluwaat si jàmm ak salaam waaw day lekk bu baax nag ceebu jën ah waa léegi waa léegi Baye moom mu ne daa dem làqu la ji foofu daa ñëw fi mu métti mu dem Gambie kalu ji foofu yaa ngi la mais koro stade ba jamaykee yaa nga foon ñëpp nga foon wallaahi koro ëpp ma fay supporter Gambie koro ma dama dama ne waa lii nu maa nekkee kii nag Gambien la ne fii su ma tourné public ba yuuxu tàccu yaa ngi dégg moom mun na fi bu tourné moo yàlla xam doy na xam nga mais ba li ma koy wax maa yàlla ko yàlla defal wér yàlla may mu wér yaa ngi dégg xam nga ne ku jël combat. ku jël combat te waxaale woo prix. wax waxuma la fay la temps fa fa la bëgg a na yam nañu waxante dëgg rek moom bi daa waxaale daa waxaale ñu fay ay millions mais ba tey man waxaale wu ma new ma kii fay ma prix dëgg làmb ji laa ko wax naa ba fantaan rek. mais dégg naa mu wax benn wax. wax boobu dama koo for ci wewu béy mu ne bi yoon moom dañ jël wewu béy daan daw day far fi wewu nag waaw kon wewu lay ëndaale mbër jël bi day coupon maanaam a indi ah. moom moom kay loo ko dara di moom boo tam ne affaire la am ne jàpp ko sax ah. yaa ngi dégg mais ma ko wax daal wallahi combat bii bàyyi doon mu daanu mën naa am fii mbër quatre combat laa am quatre combat laa am mais combat bii yële combat combat bi pour muy leer am am këlantiku la man ñële laay préparé préparé ma kii de mbër man ñële laay préparé mais du kii kii xam naa li am sama diggante ak moom boo du siflee xam naa loolu wallaahi kii du taxaw kii bu taxawee combat bi du def deux minutes day daw maanaam mbër boo ma jëlee bëri ba léegi ñaata combat laa bëri da nga amus a gis bàyyi ma ngoo ñu ne heure bi siflee la mu ngay jéggi saako mu ngay anjet boo xoolal sama combat yëpp ci kawam xamante ni amul benn Gambie la daan te mi daan Gambie ku mu ñëwuloon kii moo France moo France daa arrière di arrière ba jox ko bi quoi yëkkati loxoom mu dem moom la ngeen dafa arrière ba doyal yëkkati loxoom mu dem mais loolu roi des arènes lan la ambar roi des lan la. kon yow daal reconnaître roi des arènes Gambie. non du ma kabayal mais dafa yomba ni mu te ko bu doon Sénégal na bëre ba xottu xataki dagga te du jege sa roi des arènes waxuma la ay Gambie Gambie dafa roi des arènes dafa yomb de. ah déedéet lu leer barke Rasulullah dafa yomb billaahi mais ay mas nii la ko faral menam Gambie yi menam Gambie la daan kala daan. menam Gambie nga daan yow. yaa ngi yëg daan. ak ku ma yow dama lay daan. yow bàyyi ma ñëw buñ saay noon yow ku la yow man fuuf ku dul yow maa ko man barke Rasuul laay maa la man yow taxaw taxawal fi la nga taxaw ñi ma woo loolu yow ah, gisoo mu may a a ah, ah, ah yaa kii moom la fen te ma sa yooyu leen amul eh eh yooyu fenn am seen seen gàmbe ngeen mais amul fii yaa koy saaga xam mu koy waa léegi neex naa gaa yaa ah. kon léegi Jamaïcain am na solo léegi kontaan nañu waaw léegi waaw taxaw yaa ngi dégg boo pare na pare na ar bi tax sama diggante ak moom mu jékki-jékki ñëw bu jub ma billaahi wallaahi taala li may wax bu fekkee du dëgg yàlla tàkk lii bi ah, ak julli jumaa bu ma raw ñu robi ma mu ñëw ne baa ma doon jaar fu ñaaw laaj ka laa ko tontu mu ne nga saa nga jeex na war ma nit moo des ñu sëgg ma yow mu nekk ay saaga jëndatu ko war minute mu nooyi futt ne nii daf xar taxawat mbër barke alxuraan mooma saaga maanaam mu ngi taxaw barke yónnentu yàlla Muhammad mooma saaga kii mais bàyyi sembereng dégg naa da nga amoon sembereng de xaw ma sembere am fee am fecc saa boo ko wàññee day def def loolu kër da ngay suuful sembereng loolu fecc waaw nii nii nii saa boo ko wàññee day tiit day taxawaat def nii tegaat suuf. mais loolu am fecc la mais fii. xam nga seen bëre xam bëre. bëgg a bëre. bañ bëre. da nga ko bëre. bu seen bëre wàccee doo tuus doo fecc. déet waay bu seen bëre wàccee fii doo tuus doo fecc. li muy baax maa ko dàq. parce que rasulallah bi ba seen bëre gàll bi ñëpp a yuuxu. gisal gisal ma xool baay wanal gaa yi ñu xool. wanal gaa yi ñu xool. waaw bi wanal tuus bi nan bi boo xaw ma ndongo si sax ma ndongo Njaay. bàyyi doo ñu sembe rek na la jàppale billaay na gën a renforcer gàllaaj renforcer centralement. yow ndongo laa xam. daal mais. bu dafa am ku yóbbante dafa am ku yóbbante baa ma ñëw bëggee ma jàppale ko man soxlaa ma cent franc na la jàppale. ndongo si dafa am ku yóbbante ci man jamaïcain mi wóor na ko mu na damay bëgg jàppale su boobaa baa ma ñëw jox ko xaalis jàppale xoyantaan ma nekk ko li mu war a jàppale naka renforcer ci yow soxlaa ma cent franc man yàlla rek soxla ma cent franc. kon léegi yaa ngi dégg. ni ñuy toogee fii damay jéem a waaw naan. leen vingt mais am naa ci droit am naa ci droit. waaw yow war nga jéem a indi maslaa dama ñaanal xaalis baa mi ñor yaa ma ñaanal xaalis. damay maslaa ma. maslaa nga indi jàmm ngay woote. maa ngi. yaa ngi dégg amuloo nga kii am ngaaka la kii am mos dam dam defalee gàmm bu koy dëkka Modou Lo defa mu koy dëkk kii ab seer la kii moo war gën a nekk ngaaka kii te bëre kan mbër kii bàyyil ba mu jógee fi ba pare rek kii ñëpp kii bu bu bu paree maag moom bu bu paree maag moom waxuma la waxuma la Sénégal de quarante doon fa taxawati ñu ñëw fii waxal leen la eh, xam nga la oto bi doy na nañ ñibbi. waaw waaw kon bàyyi waaw voilà voilà léegi jeex na. li may wax mu ne damaa dëkk Baami Ndiol Balla Gaye damaa dëkk Mor Lo damaa dëkk Eumeu Sène Eumeu Sène ñoo bokkoon di entraîné Oscar Diallo moo ñu yoroon booy bii maa moom bokkoon école de lutte Balla Gaye ah ma ne ah ah waaw kon kan moo kan moo fa nekkoon kan moo yor Eumeu Sène du Diallo kan moo yor Eumeu Sène du Diallo man yóbbu ma man xaalis moo fa yóbbu. Ah, am na solo photo de famille xoyantaa andi micro bi. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm askanu moo ma la. supporter Baye Mandione. man xeexloo ma kenn. xarloo ma suma benn supporter man maa war a man maa saayan xeex nañ ma ma xeex ak bàyyi ma ñëw duma ko daan ko ñu ñibbi kaam Aliou Mané maa ngi lay gërëm di la ziar di la ñaanal jàmm di la wax ne làmb ji sa làmb la meeru Kayor Ablaye Cissé eh, Babacar Sour Ta Sakho askanu gi commune bi yëpp ngeen hmm? Babs production Babacar moom ma yoroon Dakar bi def ci man lu maa ngi koy ñaanal Euh, di nuyu nag Ousmane Gueye Tafa Gueye walloo famille fans club Khoyantan man combat bi yëpp fans club Khoyantan ñoo ma yor lépp lu ma def ñoom ñoo ma ko defal baa mi njoor euh, teyel rek bokk si sabar gi boo teyel sa ndënd day toj kon dañu wolof yooyu. kon daal nga boo sabar gi boo teyul sa ndënd lay toj. waaw man ba man ñi lay préparé. boo teyul sa ndënd lay toj. doy na bàyyi bàyyi kaay leen photo kaay leen photo wu. maa ngi gërëm ndongo si ndax yàlla dama lay duba dama lay daan. yàlla mu lekk ba suur. kaay leen photo wu ñëw dugg daan. kaay leen photo kon yow mais yaa koy fayu si yow. kaay leen photo déedéet. bàyyi photo wu leen. Babacar